parti bii di nouvelle force patriotique El Hadj Omar Ndiaye si Touba doon amal nag ay activité sociale mi ngi nag taamu woon gox bi di umul xuraa demoon nag seet yi ñu nekk si marché bi di fi yëngu jébbal leen ay masque ngir ñu mën a aaru si mbas mi waaye nag lu ko jiitu askan wi ñoom de lu ñu yàkkamti woon la ndax jàpp nañu ni bi mbas mi tàmbalee ba léegi kenn ñëw fi masawu leen wala sax mu jox leen ay masque wala sax sensibiliser leen ñoom ñoo ko waxal seen bopp déedéet kenn boolewuñ ci wax yàlla ndax ñun masque moom bu ñu ko takkee ñaare dem biir dëkk ba dem ba corniche ñu jënd masque cent franc takk. ñu jox ñu masque ñuy takk. Ah, moom koy wax dëgg yàlla ay benn benn ay benn benn ko fay takk ay benn benn ko fay takk bëriwul. ñëwuñu fi ñëwuñu fi dama di gis moo fi kenn. maa ko jënd sama bopp waaye kenn mësuma may masque. naka noonu ne El Hadj Omar dugg na si biir marché bi jël fa nag waxtu wu bare. boole kook distribution de masque ak ay kàddu sensibilisation si wàllu vaccin yi ak tamit njëriñu masque yi. ñu yóbbul ko waaye surtout mag ñi tamit nee nañ ñoom ci ñoom la ñuy njëkkee ndax feebar bi dafa xaw a am spécificité nee dafa dafa bon ci mag ñi bu ñu ñëwee ñi ñuy njëkk a ñàkk mooy mag ñi pour aar leen ndax gis nga fi ñu toll nii ni jamono ji demee lu ci waay deful it lu ci waay gisul gis na ci koo xamante ni wala am na ci mbokk moo xamante ni wàññeeku na ci kon léegi bañ ko doon laam-laamee bii paa amul bis buñ dul lim nangami nit ñu mu génne àdduna te loolu it euh, euh, euh, dafa nar a law la koy fank nag moo di moo di moo di moo di vaccin bi kon vaccin bi bu ñëwee nañ ci jàpp ndax moo nañ ci aar nag wax dëgg yàlla moo nu ci aar ku naan la tubaab yee ñu ko yónnee tubaab yi fi ñu toll nii li nu def mooy ñoom nee nañ tubaab yi nee nañ ñoom bala ñu ñoo jox ñaq ñun ñoom dañuy ñaqu ba pare kon xam nga ni kooku moom wóolu na boppam bëgg na ci ci ay ci ay ci loolu kon ñun nañu am fulla président yii moom it mu wuti ji dafa dem ba Chine dem jëndali ji ko boppam ndax tubaab yi dañu dañuy ñàkk ba pare door door ñoo ñàkk si ñun kon xam nga loolu bu bonoon ñoom duñ ni dañuy ñàkk ba pare bu desee ñu door ñu door ñoo jox kon bëggum njabootam moo tax moom it mu dem toppatoo ji di ko indi kon bu ko toppatoo di ko indi nit ñi naan dañ koy laam-laamee ak yooyu loolu kon day mel ni ñun ñu ngi yàqal suñu bopp ndax moom mi koy soow bopp war na noo sant yàlla war na leen a sant mhm. ndax bu leen neexoon lii lépp tim di leen ko def mhm. ko nag ñoo ngi leen ciy sant ñoo ngi leen ciy gërëm ñoo ngi leen di ñaanal li ngeen ci bëgg ak li ci maa bi bëgg ak li si Macky Sall bëgg yàlla na ko yàlla yonent bi Serigne Touba Mbacké defal ci barke maam Cheikh Anta saa yoo xamee suñu borom dogal na ko gaari ngeen fii wat bu soobee yàlla yonent bi man booy nga xàmmee ma moom danaa dikk na la nga naa mën a lu ma la waxoon nga dama nangam ak nangam la waxoon mën a la bisimilaay bi ñu bàyyeekoo fii dem nañu seeti chef de village bi di Baye Saliou Niang moom yëkkati na kaddu jàpp na ni kat El Hadj Omar Ndiaye lii mu def defal na ko gox bi waaye nag ko def woon dina jàdd ndax waajuram bu góor jàpp nañu ni kat gox bi bokk na si ñi fi njëkk sànc waaye tamit am na fi taxawaay bu mat sëkk si wàllu social waa marché bi seen turu délégué rafetlu ko ak ndaw yi nga xamante ni ñu ngi si gox bi waaye kii day umul xolaa kenn ko bëgg amut te it wax dëgg yàlla am sant nañ ko bu baax baax waaw ah, bu baax a baax wóor na ma de su fekkoon toon tey jii président nekk tey fi la nekk tey ak ni mu bëgg amul xalaat ah xam naa amul xalaat sax daal président ñëpp la moom ndax moom dama bu jabooti yëpp waaye moom moom yàlla da koo xiir ci tey jii tey jii tey jii bu toogoon fi président toog tey jaar fii tey tey di nuyu bu baax kuñ kilifa yi li tax nag ñu teew fii ñun dañ fi nekk comme responsable des jeunes jiite fii ay ndaw yu bëree bëri yoo xamante ni ñu ngi fi nekk di nekkal askan wi waaye di nekkal surtout village bi ndax bi ñu demee ba def ay xayma ak seetlu wu toll ne dëkk bi doon na dëkk bu mag boo xamante ni saa defam dafa am fu mu tegoon ñu gis ne doxalin bi ak melokaan yi ak ginnaaweel gi doy waar doy waar gu toll ne ñun ñi fi nekk bi ñu demee ba gis loolu yëpp ñu booloo woo takkoo doon benn. kon tey bu ngeen defee sensibilisation bi ñu def lu dul gërëm leen ci ndax Euh, waxuma la dara mais dañu wax ne jaboot boo ko fekkee ci këram jël ab doomu jimbo jël jox ko sax yaa koy doon ab dundam te loolu mel na ne tey def ngeen ko ndax moo waral ngeen ñëw fi di sensibiliser population bi di jël ay masque di leen jox di leen defal lépp loo xamante ni tey bokk na ci lii tax maladie bi nga xam ne moo moo lëmb réew mi ñu man koo daw suñu kéemtalaay kattan ñëw ngeen fii jël seen matuwaay jox leen ko lépp loo xam ne ñu bokk na ci li li tax ñu man a respecter les mesures barrières jàppale ngeen leen ci kon ñun duñ def lu sant leen ci loolu gërëm leen ci. moom El Hadj Oumar Ndiaye si cëppaandaw la amal na nag waxtaan dellu siwaat si taxawaayam ak mbëbëtam si doomi Sénégal waaye tamit goxu Bawol bii nga xamante ni am na fi base politique bu mag te nekkat du def dara fàtte leen. waaw xanaa euh, activité lañ fi def si activité bi nag euh, dugg ci dans caravane bi ñu tàmbalee ci weekend bi yëpp nga xamante ni qui nous a mené à Thiès à Diourbel ñu parachevé ko fii nga xamante ni moom mooy Touba ñu choisiroon nag euh, dëkk bii nga xamante ni moom mooy Oumoul Khoura la choisir tey jii qui est village boo xamante ni c'est au niveau de la périphérie dans la banlieue de la commune de Touba ñu choisir choisiroon ko nag ñëw def si ay activités de sensibilisation ci euh, port du masque ñëw distribuer si de manière bénévole aux populations et particulièrement au niveau de la du marché de Oumoul Khoura ay masques mais également profito ci sensibiliser waale population yi ci euh, euh, vaccination yi nga xamante ni mu ngi ñëw pour nit ñi mën a inscrire nit ñi mën a aussi euh, saluer les efforts de l'État du Sénégal yi ñu def mën a acquérir ay ay ay ay vaccin ñu man koo accueillir véritablement favorablement. le constat mooy nit ñi ñu yàkkamti woon jot masque yi. na ni wute ak njëkk ba bu joxe masque dañuy daaw ak tey mel na ni kon liggéey boobu yow da si liggéey ndax ñëwoon nga tubaab bu njëkk ci marché waaw bi ñu gisee bi ñu ci marché bi gis nañ ni vraiment nit ñi soxla nañ masque yi ñi gën nañ noo gën nañ noo euh, yegsi ci ñun pour jël mask yi ndax aussi léegi maladie bi vraiment euh, euh, doon na une réalité sociale fii ñu toll nii nekkatuñ comme première fois opération bañ fa njëkkoon a def au début nga xamante ni les gens étaient un peu sceptiques aujourd'hui la maladie est devenue une réalité moo tax ñu nit ñu mën a euh, profité ci loolu gën a nag sensibiliser ndax nekk toujours en avant-garde et en anticipation ndax tey xëy na nit ñi soxla nañ masque yi waaye tey jii joxe nañ masque yi waaye li ñu gën a communiquer mooy ci affaire vaccination ndax vaccination moom mooy ñu mën a libérer les énergies mën a relancer l' économie le président dugal na un programme de relance euh, économique et sociale PAP 2A donc par rapport à ce plan de relance là véritablement euh, réponse communautaire bi nga xamante ni. Euh, kii bi moo ñu ko mën a jox vaccin bi moo ñu ko mën a jox ci loolu lañ mën a profité pour mën a relancer suñu économie. yëngu-yëngu bii nag ànd na si tamit ak camaradam bii di Bassirou gay di tamit responsable AFP si Touba. ñu bokkit nekk seen mouvance présidentielle El Hadj Oumar Ndiaye njiitu nouvelle force patriotique du Sénégal Sénégal moo ñu saf joxewaat rendez-vous si yeneen jotaay comme ni mu ko defee woon bi mbas mi soogay tàmbali si weeru mars bale passé ñëwaat également si vaccination yi nekk dina koy wéyal si yeneen yi.